kii si contrat dafa ne si contrat xam nga war a bëri combat bu rëy moo ko ëmb seen combat capital. Samba Xoyaan bi Demba Ngom ak Demba Ngor. jili ñun combat man fi mu ne. Demba Farima jigéen maag dab daan sax. man yaa xam naa bëri dab daan ba ñu xam ba ñu waajal combat bële le 4 avril. da ngeen bëri ñetti yoon. waaw ñaari mu daal la benn. ñett waaw ñaari yoon mu daal la benn ngeen niil benn ngeen war a bëri seen troisième combat. ñu war a bëri suñu troisième combat. ëmb seen lu ma koy wax chaque jour rek na waaj lu mu waaj doyul billaahi wala yaa war a yow xale bu ndaw yaa war a wax Eumeu Sène waajal na waaj lu mu waaj doyul ndax ñun combat bi ñun booy ñun ñoo ko jël au sérieux ñun waa ñun doomu Lac de Guiers ñoo ko jël au sérieux te bu jour ba Eumeu Sène dina doyal sëkk maa la ko wax man Mbaye Tine waaw ci lan bëre xeex ci bëre lépp lépp làmb la rek en tout cas combat bi daal ñun ñoo jaral ndax tey jii ñun daa am fu ñu a dem ci làmb Lac de Guiers làmb ji moo fu gën a néew defet jii li mbër mu gën a naqaree daan ci làmb mooy Lac de Guiers 2 mooy ñëw doo ko mos a ëpp doole waaw. waaw mbër mu naqaree daan ci laa mooy Lac de liggéey kon kooku roi des arènes da war a téye waaw ñu dañoo war a téye roi bi téye ko nii mu yàgg suñu loolu jili waaw. <laughs> loolu de neex la bëgg neex na ci non ñun loolu lañ bëgg dañ ko war a téye te incha allah bu ko mbër téye moom du yomb de pour nga jël ko ci moom du yomb de <laughs> ku koy li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 dara di ñaari mbër yi nga xam ne ñoom rekk fees nañu